sëñ bi moom mbiram daa xaw nuroo mbiram suñu borom darul jeex waaye wax dëgg yàlla bu doon lu ñuy taataan si rek doy na sëkk euh, bu fekkente woon itam lu ñuy jariñoo la njariñ liit bu doon luy ëpp dañ naan ëpp na ndax sëñ busuraab bi mu tàmbalee xam naa sax bi muy bi ko sëñ am laajee kan kan mooy sëñ Tuubaa moom baat boobu daa xaw a yéeme ba koo ko waxit bu dee xam na aslëf ci ki koy laaj kooku mu xaw tuuti nag am lu mu ko miin mi nag lu mu ko xam-xam moom dana am tuuti lu mu yëg la nekk ci aw làmmiñam rek la lay mën a wax ah suñu gànna it wax ci xaside yi lu am solo waxit li ci gën a am solo nag te gën ma cee neex mooy ñëwin wi ak wuy si wiin wi ak boo ñëwee itam li ñuy wax comportement bi nga war a yor euh, sëñ Ahmadou itam wax ci njariñul xaside yi lu ci nekk rek dayoon na sëkk bu ci kenn waxoon rek doy na sëkk li am solo dama jàpp ne moo wund jataay bi moo ñi xam li sëñ bi bëgg def mhm. am murit moom taalibe bi li mu war def mooy nu ko sëñ bi bëgg sama waajur dafa ma daan wax ne sëñ surtout daan wax ne ñett yii de ku koy ku koy saxoo doo juum te kenn du la jëlee fa nga nekk mooy sëñ bee ma ko wax ak sëñ bee ko def sëñ bee ma ko def loo sëñ bee ma ko waaw sëñ bee ko wax sëñ bee ko def moo ma ko def loo ana looy def nii sëñ bee ma ko def loo yow kooku day nekkatul yow yow bu amee looy waxati kon ca sëñ ba ngay dem léegi ñun nag kon leen suñ suñ bépp li mu war a doon mooy sëñ am surtout gis naa ci fan yëpp keroog bi ko sëñ bi waxee ba ko déey ko la mu ko déey ba léegi amutu benn sax saa suñu no ko wax danaan lu ngeen mën a sosal lu mën a xew nañ fexe ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee <laughs> loolu rek mooy yitte ji damay Euh, am na tuuti ay seetlu yu ma ci seetlu mooy bisu àllarba bi te jot naa ne am na lu xewoon loo xam ne àllarba la xewoon diru dikk waaye dama gis sëriñ bi bind benn xasida boo xam ne ci bind da koo da koo tuddee bi yow mi arbuhaa te sëriñ bi Sëriñ Muntaxa wax na ne bokk na ci li wund jataay bi te ña ko fekk ginnaaw sëriñ bi moom ba muy jógee njaareem di ñëw jundullaahi xaaliboon nañ ñoo ko gunge mu muxarraboon yi ànd ak moom mm-hmm. bi mu agsee mu tànn ca ñam soxla wetti li koog ñoom ñi ko des mu dekk loolu leen boo sëñ bi àgg na foofu mm-hmm. ginnaaw nag ñun fekk wuñ ñooña waaye ñu ngi dund sëriñ bi te gën fa suñu yéen ñu gën ñoo bëgg sëriñ bi jeexiiti gunge googee ñun ñu def jeexiiti gàttandu bis ba kuy ñëw lu mel ni sëñ bi dafa war a ñëwaat nga bokk ci ñu ko war a gatal yaakaar naa ko ko waajale noonu doo fa indaale yi sëñ gànna doon wax beneen bi ci desit mooy sëñ bi bu fekkente woon ne euh, day santaane lii mu santaane sant na ko ku mat a sant ndax dañuy wax ne booy def lu dara da koy seet ka ko man nga la ko bu jëlee bis bii jiital ci suñu am sutum suñu soxna damay jàpp ne bu doon am matt lay xarlu day seet ña gën a man a xar matt mu jiital leen ci xaru matt ma ndax ñoo gën a xam yoon kon bu jëlee suñu am sutu jiital ko ci jël is bu taraxee ci ñu njiital suñu yuusu toftal ci ñu ànd damay jàpp ne fokk ñu ko suñu bëggee dañ koy amee noonu mm-hmm. léegi nag ñun bu ñu xool ni ko bëggee ñun nañ xool ni ko sëñ bi bëggee mu amee ko ni ndax suñu bëgg ni ñu ko amee ni amee ko ni ñu ko bëggee ñun mi ngi dugg ci biir ni ko ni ko sëñ bi bëggee te jundulaayi xaali bon yooyu ma tudd léegi dama gis ci bi yomi arbuha yi googu sëñ bi xasida googu sëñ bi def damaa gis mu bind ci ne malaka nii jundiya xindallaahi am faneen fu mu waxaat ni ilaya qaada malaka nii xubbi ya jundallahi la wax siran kafaanii kulla jaanillahi waxaat ne ilaya qaada xubbi ya ahlu badri wa xismatan kulli irtifaawul eh, xadri kon day mel ne bu fekkente ne jundallahi xaaliboon yooyu ñoo àndoon ak moom bisub bisub àllarba sëñ bi woote waat lam ca dàkk moom ni ko sëñ Gana waxee moom moo xam li mu ñu ciy digal la moo war a nekk suñu yitte te dégg naa wax na ne euh, nañ delluwaat ci Sëñ Tuubaa delluwaat gi ci Sëñ Tuubaa nag gisut lu ci gën a gaaw jaare ko ci xaside yi noonu la ko waxe ma gis ne nag xaside yi si am surtout liggéey na ci liggéey boo xam ne damay wax ne xew-xew yi yi xew ci jamono moo xew ñu koy gis nii waaye yàgg na ci ndax sëriñ bi si ngeen sut ba mu nekk suñu sooy bu di jàng alxuraan ak xam-xam boobu la tàmbali woon na dund xasida ak di ko bind ku ne xam ne la ko suñu sooy bu waxoon dénk ko loolu jurul wax waaye daa daa tàmm daa tàmm xasida tàmm dundal xasida ndax koo xam ne yow ci ngay xëy ci ngay gont sa liggéey bépp moom la bés bu set mi ngi organiser ay nit guddi ajuma gu jot am na bis yu ñuy def yoo xam ne guddi ajuma gu jot du jël dañ koy def kooku jot jot naa ne miin na lii lool benn njuumte du ci am yaakaar naa ndax da koo miin te it da koo jox war ma joo xam ne bi ko bi ñëwee ci sëñ bi la ko sëñ bi dee sax moom ji mu ko leeral waaye nee na daal nii ma gisee sëñ bi waxee daal fokk ñu ñu jaajuwaat ni ko sëñ bi bëggee ñu defe ko ni te moom ginnaaw xasida doon dundu di ci yare def ci loo xam ne ñépp ra ñëpp xam nañ ci ab liggéeyam ndax booy xool euh, jamono yi mu nekk Serigne Souhaïbou cafteeru kafe la daan lijjanti ci guddi ajuma xëy ci xëy ci ba jant bi so cafteeru kafe boobu du mën a sotti nga xam ne da koy jaral wut ak kaamil ñëw daare kaamil gii jaay ko fi wala mu wecc wala mu ñëw daare kaamil gii euh, ñaan fi kaamil ñu jox ko ko mu dem wecciku ko ngir mën a am ñaar fukki dërëm yu mu mën a defaree cafteeru café kon bu demee ba si yooyu wër ko rek mérite bii suñu Ahmadoon wax day daal di ñëw li sëñ ah, euh, Alioune Diop waxoon day daal di ñëw moo sëñ moom buy dal muy dal moo tax liggéey bu rëy boobu nga xam ne def na ko ci nag di ko bind ba noppi wëlbati ko di ko jàng ak a jàngale ak ak di ci tege ci aw yoon nekk ci say sayxu tarbiya nekk nekk ci sayxu tasfiya te loolu ñun ñi jàq soog moom xam nañ ci dara baraana fii may waxee yoon yi ku su ku su sol pantalon te suñu am sut tax maanaam su su rusa sol yére yére yu ñu koy xeebe te suñu am sudoo tax baraana ku xamutoon dara ci aw baytu xasit xasida ci suñu am sudoo tax te moo ne mosu koo gis fan yii rek gis naa ko koo xam ne yéem na ma lool ndax daa bind mbind mu rafet mu ne ma man mosumaa gis suñu am sudoo xaw ma ko waaye mbind mii dama koo bind ba mu rafet lool ci man sama xel dem ci moom kon kooku am na ci ab liggéey bu rëy bu bu mu ci def mhm. kon kon sëñ bi li tax mu sant ko ko moom xam na ko mhm. li tax mu sant ko ko xam na ko bu baax a baax a baax a baax ndax ku xam bisub xasida bee nga xam ne moom lay taxawal tam yàgg lool nga xam ne ñaar fukki kuréel yi nga wax ak juróom-ñett soo fa demoon te bisub xasida ba da ko fekk ñaar fukki waañ ak juróom-ñett bi jarbatu maraaxib waañ wu nekk nga gis téeméeri nit téeméeri mbana di ko di ko di ko togg jot naa ne kooku ku ko sant lu mel nii miin na ko miiniin woo xam ne jot naa ne ni ko suñ bëgg rek la koy mën a dëgg su ko defee nag euh, li nga xam ne moo ci mat a xam amata bàyyi xel mooy ki ñëpp di wër ci moom lañ jëm mm-hmm. loolu moo mat a bàyyi ñëpp di wër moom lañ jëm ñu wa bàyyi xel xorom ji bu baax a baax a baax a ci waggar ko ba noppi it ahlu xasida lañ wax ahlu xasida mooy lan mooy ñi ñi nekk ci kanam te di ci yëngu ñu ràññee leen ci waaye suñ tubaa si si si Muntaxa murit yëpp la wax mm-hmm. képp koo xam ne yaa nga toog fee naan gaay seen bis bi yow moom sax murit day daal des ndax ki nga ne ki nga ne mooy yilif ñëpp moo wax ne ne ñëpp ñëw amul bu ma damay xëy damay xëy waaye su ma teelee wàcc de kon kuréelu xasida yëpp yëpp yëpp noonu ko suñu Aliou Ndiouf waxee ni nosoo ba ci bitim réew fi ma waxee yow nii ñoom fi ne nii fi ne nii bi sëñ bi joxee ndigal li benn coup téléphone képp lijjanti na lépp ndax daa fekkoon si yam surtout nos ko nos yi woo xam ne bu woowee kenn jur mu yoowaat keneen ñëpp dañuy daal di benn buum la te ne Ahlu Xasida nii kuréel bii mel nga xam ne nii ñu nii ñu bokk yi nii kuréel bi nga xam ne bu kii dee bu kii fobee tànkam teg ko ci moroomam du yëg ne teg na ko te bu doon jullee mu xaw ko wan wan ne ko maa ngi lay yàqal sa julli noonu ñu xajantoo ci seen biir noonu lañ xajante ci seen xol moo tax lépp lu ñu leen defloo day day nos dañoo àndandoo ba nekk benn ci biir noonu bayit ji tegaloo di neexandoo noonu lañ noonu lañ mel moo tax sëriñ bi maanaam dajale gi day day yomb ne boo demee Europe bitim réew fépp fu mu ci mën di doon waxuma la ñuy ànd ak sëriñ bi ak yëg bis bi waaye fi may waxee yooyu ña ngay organiser ña ca a ñëw ñëw ña ca mënta ñëw ña ngi ko fas yéene buñ ñee ahbabtu fii rek ñu ne rabbal alamin foofu waaw la wax lii ñoom noonu lañ nekk fi may waxee yoon yi di ko nos loolu nag nosu liggéey bu bi biñ ci def ba ba loolu man a am loolu dama jàpp ne moom la suñ Muntaxaa yëg ci saayir si moom itam ba tax mu bëgg noonu def loolu lii ci baatinam ci baatinam te xasida dafa dafa am lu ci am solo lu ci mat a bàyyi xel ndax damay jàpp wenn bayit rek bu suñ mun taxaa joxe woon wenn bayit képp ne dama bëgg bu ngeen dikkee dee ko di ko baamu damay jàpp ne loola rek doy nañu sëkk sëkk sëkk ndax la suñ tubaa wax ci xasida yi ak lim ci daj ci xasida yi nga xam ne suñ tubaa rek kay jàmbaar moom rek kay jàmbaar ndax sëñ bi nañ bàyyi xel ne ba mu koy bind yaakaar naa maam Cerno ma na cee am bis boo xam ne xasida yi yëngal na ko ba sëñ bi ràññiku ci ràññiku ko ci kanamam mun ne ko xanaa li ñuy wax daa neex ci yow mu ne ko waaw neex na sëñ bi ne ko ana nu mu neexe mu ne ko damaa xamut ñu koy jàngala la damaa xamut wayin wi la damaa xamut ba xam xarima ki ko doon yenkee wala ndit wala daajin bi sëñ bi ne ko yëpp a ngi ci biir de waaye fa ma ko doon lii ñu wax bam ba mu yëngal la de fa ma ko doon waxe keneen ku fa nekkoon ku dul man da nga fas yéene wax leneen lu dul lii barke Ahmadul Xadim tamit dëgg leneen lu la ngay ngay xooy waaye waaye doo wax lu dul lii léegi nag xasida yooyee ginaa ba ko ba fa sëñ ba nekkee di ko waxee noona yay matt ngay matt yaay gàjje ngay gàjj la muy yëg ma ngi koy yëg te teewul xasida yooyu moo gën a baax gën a rafet gën a kawee ci bi mu nekkee Touba di naan kafe suñ mun taxaa ne si si Cheikh Mamadou Mourtala moo ko seere ci suñ Touba mu ne ak ko yéem ñi bokkul waaw moom di nga xam ne moom la defoon ci ci bi mu dem xasida yooyu li ñuy baax baax baax day mel ne yam defee foofee nga xam ne ci xat-xat jàpp lañ ko jàppe woon yooyaa gën a baax gën a kawee gën a gën a neex gën a neex a jàpp kon day mel ne kooku kon jom aku fit kuñ ko jiñ ko dul moom dañ lay nax icaxal tawaalifiya bil muxtaari junnata kulli qaari in xannaari wund na bis bi loolu rek jar daw ñëw bu ci sëñ bi yooyu yëpp itam tam sëñ bi joxe ndigal jar na ñëw wacc icaxal tawaalifiya bil muxtaari junnata kulli qaari in xannaari waxuma nag ijales bila afatin wala kadarin wala xururin wala sidrajin yooyu yëpp moom waxee nda ko ndax xasida sëñ Tuubaa moom koy xaanoo xasida keneen moom day jël engagement wa alihi wa sahbihi yaa man jaxal xam nga lool la wax xatti ka xidmatil xiyaari fan jaxal la ca teg mm-hmm. may ma nangam nga ma ko may léegi ne moom li muy na ko ba noppi dog di ko ñaan te ko ndigalul loola muy ma dal yel xusna wa ma dali sayat man li yaqulu haaka xablu ma diyet ne leen ba noppi jox ñu yóbbal bu a mooy neexal ñu rek bu noppee mu ne dama leen doon ñu doyee sëñ Amsatu Jaxate dafa wax ne suñ tubaa da ko nga lu tax ma am ci sama borom lu kenn amuta mu ne ko mbàkke ku dul yow ko mu ne ko sama bon sama borom wax la ko mu topp si mu ne ko sama borom daf maa woon li ñuy ñaan ba noppi wax ma ni koy ñaane daal ne ko sama xalima ñaw lool sama daafar samay bët ne jaarate tayeelu dégg nga waat da ko ne xam nga lu tax ma am ci sama borom lu amut mu ne ko bëgg nañ koo xam ne mbàkki ku dul yow xamu mu ne ko sama borom dafa maa woon li ñuy ñaan ba noppi ne ma ñaan sama xalima ñaw lool sama daafar samay bët na jar te tayeelu ma mu ne ko aw lay laay bañ ëllëg sa sa sa sa digg ak ñi ñi ñi ñi ñu ko bokkal suñ ma nee ko foo lu tax nga may li amul danga ko ko beral mu ne ma ma leen moo ko ñaan kon loo tax mu ne mu sax naan damaa maya maya maya may ba far ma may sax lu ma ko laajut xam nga atayta ni jamiha doona sala bi am na waaye wali tuqoodu su la waxta talib mooy la ne ci ruq ba te gisuma ko te su ma ko gisoon ñaan ko te lu ñu ñaan la mu ñoddi ko ne ko lii ci nit la bo mu ñaanaa moo tax mu dem ba naan ah atayta wa maa lam asali ak li ma la laaj moo tax ba muy kañ boromam ba mu ko ne waxatta lii min ko suulan lu mu ko ci tegal faaxa masalati moo tax suñu borom ne ko am nga liggéey mu ne ko lu mu doon mu ne ko falaaka sukriya yow waxabu yàlla mm-hmm. te nag ci ay ci ay dafa ko woon ci am naflaay ci ñun si si muntaxaa ci am naflaay la woo loolu moo ta bàyyi xel si muntaxaa naflaay la woo te sëñ bi nekkutoon ci am naflaay te xasida yi li muy bari bari bari bari amu ci genn xasida goo xam ne sëñ bi daa naan café kaasu ne alma bind fi xasida déedéet xasida gu nekk dañ ko ne xasida sàngam sa borom nga jëf ci bëxur sàngam ci heure sàngam su matee fukki minute lañ la may nga def ci xasida googu su matee fukki minute ak benn ñu jaayante du ay caaxaan ne tamit ne ba pare boole ko yem koy boole ba ne ko nee ko ci géej gi ba ñëw fu mu ne sami allahu liman hamide kenn dina rabbana wala karam moom képp donc faw moo ko moo ko doon teewul ñu ne ko saw làmmiñ foo toll day jàng xasida day jàng alxuraan te foo toll sab loxo day bind te bu loxo bi bu loxo bi jum balaa mi ñu jum loolu mas ne ko dégg seen yëfi nit mu bind na yedd yi taqutu wal lisaanu yedloo walay sa yalxuma li jihaati xid sama làmmiñ a ngi jàng alxuraan sama xalima sama xalimaa ngi bind xasida làmmiñ ñu jum xalima ko kon loolu du ay caaxaan kon li ñu suñu mun taxawoo dañ ko war a xam bu wér te bàyyi ko xel ta xam lim ñu woowee lu mu doon ba noppi it jaayante gim jaayante rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax xasida yi daa am fu mu àgg sëriñ bi am fu mu àgg boroomam sëñ Ahmadu wax na ko léegi sëñ euh, Gànna wax ko ci muñ loo gi mi muñ loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xoolal yebbu sumti daahi jumlatan xaasa nabi la leen boole ko te basamal muxtaaru lil jinaasi waaye mun su badaa mun su badaa baxee bu kalxonaasi maanaam saa saasu sa yonent bi sa alayhi reetaanee rek iblis nga yuux te ñun sëñ bi suñ tubaab moo ñu garantir suñ lépp ndax mboolem lu ñuy wut defal nañ ñu ko ci xaside yi ba noppi kon lenn ndigal lu ñu suñ tubaab jox ñu war koo war naa yomb ndax loolu mu wax ne bool ñu ca ne ne ne damaa jëlile euh, asaluka al jannata bil muxtaar li man yeloosu bi sa sitari waaye suñ borom moo ko ne demal ca ridwaan ma yor àjjana maa ngi koy suñ borom ne ko maa ngi yebal ridwaan mu ñëw ngeen lonkoo ay baaram yéen ñaar lu mu la wax na nga ko def suñ tubaab bind ne ridwaanun alqaasinu lil jinaani xat saafaxal xaddiima bil banaani ñun ñun suñ bopp sax yemuñu ciy loxo de yemuñu ciy loxo de waaye ña ngi ko naan ah dañuy bañ Malick di ñuy jaawale ak Ridwaan de da nga wax ak moom mu daal di bindaatu bayit wax ak Malick ne maalikuhum alxaasinu lin néeraani laa yantahi nahwi wala jiiraani def leen li ma leen li ma leen sant rek te bàyyi leen léegi nag ñoon li suñ yitte mooy sëñ bi dañuy digal dara ba noppi am lum ñu dig ñuy jaawale dig ak digal sëñ mu taxaa dañu bu ngeen defee nangam ba noppi nag wee yéen ko moom ngeen ko jël ngeen barkeele ko ñu dem nag di yéem nag wi ci na nagu yarlaak ku ko doon séddale ndax ñaata saam lay war a doon te béyeguñ sas wi te it ñoom murid yëpp xam ne def li si taxaa digle du kiimaan ci ñun ndax ñoo ko jaayante dëgg la lu waaye am jox ko sëñ mun te defe ko ni ko bëggee du kiimaan ndax ñoo jaayante te kenn ku nekk bu sa demee ci la nga bàyyi sa kër xam ne du du du kiimaan loolu rek moo ci moo ci moo ci moo ci am solo li ci desaat tama tama ma bëgg ko cee waxaat mooy sëñ bi dafa wax ne li mhm. tàmbalee ci jumaa ji ba daaru xudóos di tàmbalee ci jumaa ji ba mi Minam xam nga nu ko waxee dane ku mënta toog nañ ko xajal mooy daa war a xat daa war a xat dëgg la ku mënta toog nañ ko xajal dëgg te ginnaaw sëñ Tuubaa moo jaayante woon moo jaayante talam jaayante rasulullah sallallahu alayhi wa am na fu mu bi ne lam yàpp xa bay ni ya wa bay na rabbi am na feneen ne lam yàpp xa bay ni wa bay na muntaxa ba ci daajim jaayante woon sax ne boo agsee ci lu war a xong da koo war a xongal àgg na ci foo xam ne ba ba waree xongal te xongut daa dagg yaramam jël daajo xongal ko ci lu wér la te moo bind wax ne maa ko bind dafa wax ne bajjale nii bi annahu lam yaktuba isma muhammadin mata ma kataba bi xayri ahmara min al midaadi salah alayhi waahibul lu mu def bind kon bu fekkente ne moom da jaraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaraloon la ko jël deretam di ko binde moom bu ñu suñ Muntaxa woo woowee te ah, jàng alxuraan te suñ borom boo demee ci alxuraan boo demee ci boo demee ci alxuraan suñ borom dafay wax lu bare bari ci ku la woo lu mu lay doye ku la kaay am lu mu lay ba mu ne adduhoonii woo leen ma moom moo leen ba mu am na lu mu ca teg mooy astajib lakum ba mu ne fa inni xaribun tam ujibu isaa daa wata daa isaa dahaani laa ba ne yaa xaw mën a ajibu dahi lay wa aminu bihi lu mu ca teg yaghfirlakum zunuubakum kon képp ku la woo rek am na lu mu lay doyee boo ñëwee te ñun yàgg nañu Sëñ Tuubaa yàgg nañoo woote xam nañ lam ñuy doyee lam lay lam ñuy doyee nag mooy sëñ gàllu mii damay xool muuñ ci ko sëñ bi jox waaye munu koo leeral mayit mu am mënu ma muuñe mu xam ne am na lu ma sëñ bi jox te mënu ma koo leer ñun ñaan ñëpp ñu ànd di muñ ca loola te kenn mun a leer li sëñ bi li sëñ bi joxe lu mu doon loolu rek mooy sëñ Tuubaa kon nañu fexe ba ñëpp ñooy pastif pas-pas mu tax warri kan maanaam nañ ñëpp jublu penk sellal parce que yéenee teewlu suñ Tuubaa loolu la suñ Muntaxa wax ah, sali euh, euh, salaatan tam samaa wal arda yaa man xaadali namaa maa lil xarsi wa yamlawul kursi ya yaasal farsi wa yudxilaanil bisra fi xalbi nabi basiri kulli aqrabin wàññi sëñ bi xoolal woowu bayit ni mu feese nga tëjee ko nag xadayta bi xaq di lépp dugg ci biir wa tasawufi wal fiqi xiyaali bi sikkiri ma salaati wal ñun ba ñu sëñ Tuubaa woowee woon lenn lu lu mënoon a doon dañ koy wuy ji ndax li may mujj sama kàddu sama waajur moom ma ko nett ci Cheikh Ibrahima Fall dane sëñ bi da ko mattum jalamaan lu sëñ bi digle mën naa ne leneen mu dem ci xur wa dagg matt ma ba noppi ñëw teg ko ci ca cawtanuk laxat eh, caxet lawtanuk caxet ba mu takkee say wa yékkati ko say wa daa dëgër bu doon nite da koy wàññi bu doon nit loolu mooy yëfi nit da nga ko war a wàññi waaye neen daa wax ak say wa ne ko ay waaw waaw nit mbokkam ku nekk ak mbokkam neen du dem di fi bàyyi mbokkam day imaan xool ma ngay jàngale day imaan te imaan neen du dem mukk di fi bàyyi lislaam duggaat ci xur yokkaat lak yokkaat yokkaat takkoon nga taxanaat lu ne toll teg ci te ne bi nga ko daa diis bi mu naawaat ca sawi sawi lànk mu ne xeexee waaw waaw moom de nee na duñ dem bàyyi fi seen mbokk imaan ak lislaam nee na duñ dem mukk di fi bàyyi lislaam ñax saan di gocc ci xur wi taxanaat lu ñuy takk lu ñuy toll tekki ba mu ko tekki ba mu dëgër daa taxaw wax ak say am na fu Sëñ Tuubaa bind ne al imaanu wal islaamu wal quraanu wal xadiisu lii kon moom moo ko moom nee na sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall daa jóg xar bi sax yi ko ki la moom tam moom moom moo ma leen yónni ba mu ko ne cas daa mel ne xob mu tëkk jox ko sëriñ bi kon lu sëñ bi mën naa ne loolu loolu rek ma macha allah qalbi wa